Birama Ndiaye. À la présentation, Pape sur la partie technique. Merci de nous recevoir chez vous. C'est l'heure du bulletin d'information que nous démarrons avec euh, le message de Monseigneur Benjamin Ndiaye. Il a livré message axé sur la pandémie de Covid-19. Le religieux a formulé des prières pour l'éradication de cette pandémie avant euh, l'année 2021. Nous l'écoutons. Je pense à vous la covid à vous qui avez perdu votre travail, à vous qui ne pouvez plus subvenir à vos propres besoins et aux besoins élémentaires de vos familles et de vos proches. Je pense à vous, chers enfants, en manque d'amour et de tendresse, abandonnés, maltraités, exploités, enfants mendiants, errant encore dans nos villes, malgré nos bonnes intentions de mettre fin à cette pratique qui n'honore pas nos pays et révèle nos carences dans notre devoir de protection. Je pense à vous, enfants meurtris, victimes de prédateurs pervers, violents et même sadiques. Nous vivons des temps difficiles, il est vrai, avec la pandémie du coronavirus. Notre vie familiale et sociale en est profondément marquée. Nos activités économiques, culturelles et nos dévotions cultuelles en sont profondément modifiées. À l'instant, Monseigneur euh, Benjamin Ndiaye qui livrait son traditionnel message de Noël et puis le de Dakar rappelle à l'ordre les populations à son contexte de recrudescence de la COVID-19 Dans un communiqué, Al-Hassan Sall informe que le respect des mesures barrières reste une impérieuse nécessité. C'est pourquoi la police et la gendarmerie vont aller euh, vont veiller à l'application rigoureuse des décisions prises par les autorités pour contrer la propagation du virus. Il s'agit entre autres de l'interdiction des rassemblements dans les euh, espaces publics et privés, du port de masques ainsi que la fermeture des débits de boissons à partir de 21, de 23 heures. Et puis, manifestation de colère mêlée de déception des populations de Dar es Salaam, c'est dans la commune de Simbandi Brassou, l'extrême sud de Sédhiou, à l'origine l'absence du de potable dans les villages. Les femmes, de leur côté, dénoncent les durs labeurs quotidiens, brassards rouges et euh, foulards rouges. En bandoulière, les manifestants menacent de tourner le dos à toute procédure électorale jusqu'à satisfaction de leurs doléances. Moussa Dramé. En lieu et place d'une marche pacifique renoncée en raison des risques sanitaires liés au coronavirus, les populations du village de Dar es Salaam dans la commune de Simbandi Brassou ont organisé ce jeudi un point de presse, brassards et foulards rouges en bandoulière pour réclamer l'électrification de leur localité, seul foyer selon eux à s'éclairer toujours à la lampe tempête dans cette partie du Brassou. Moulay conseiller Matam-Guélom, commune de Simbandi-Brasso, appelons la communauté nationale et la presse de venir témoigner l'injustice que nous subissons. Dar Salam est un village à environ de 700 entre deux villages, à savoir le village de Boukarikunda et celui de Sansankuto. Tous ces deux villages sont électrifiés. Sur ce, nous réclamons l'électrification immédiate et sans délai. Nos élèves ont des problèmes à apprendre leurs leçons. Pendant la nuit, ils des lampes tempêtes, d'eau potable si l'on en croit toujours les manifestants. L'eau potable aussi nous manque. Quand on dit électricité, Forcément, l'eau doit accompagner l'électricité. Les femmes aux avant-postes de cette mobilisation sont obligées d'envoyer leurs céréales vers Simbandi ou Tanaf pour les transformer, se désole la dame Maïmouna Mané. Les manifestants, environ 200 personnes, menacent de ne pas voter lors des prochaines consultations électorales si la situation reste en l'état. Moulay Fikou, leur porte-parole. Nous ne voterons plus tant que cette injustice n'est pas réglée. Ah Moussa Dramé de retour du sant leen gërëm leen gërëm bu baax Pape Abdoulaye Dieye mi féete ci xarala gi xibaar yi ñu doore ko ci kàddu ya nga xamante ne monseigneur Benjamin Ndiaye daal dina ko yëkki niki démb ci wàccaayu Noël gile loole nag daal na àddu ci jafe-jafe ya nga xamante ne ñoo ngi koy dunde te loole bokk na ci lu ñu ko teg mbas mile kàddoom nag daal dina ko jeexale ci ñaan ngir rek feebar bile daal di fi jóge ci laata ndorteelu atum bi 2021 gi ñu dëgmal ay kàddoom kile di abe Baye Rémy Diouf moo ko daal di tekki ci wolof ñu teewlu ko. maa ngi xalaat bu baax ñëpp ñi mbasum Covid 19 toskareel ñi ci ñàkk seen xëy ak ñi seen loxo jotatul ginnaaw ba tax mënatuñu faj seeni aajo njoboot yu gën aaju. rawatina sutural na mu ware i seeni mbokk maa ngi leen di gëstuwaat yéen xale yi ma sopp-sopp te ñu leen di atte ñàkkal coofel ak toppatoo gi ngeen aajowoo jur sànni pamti pamte jariñoo soppiwaay yàlla maanaam ab yalwaankat dëkkee tambaambaalu ci biir dëkk bi ñuy fas di faseet yéene bàyyi jëf yu ni mel boobule taxawaay du saggu mim réew li yees mooy jëf yu ni mel dañuy feeñal sunu farata su doyadi ci wàllum kaaraange maa ngi leen di bàyyi xel yéen xale yi lasar amaa doo leen rëcc yàqkat yi amaa ñu leen di teg taafar ak fitna mbasum coronavirus sabab na jamono ju metti sunu dund njaboot ak sunu dund mboolem nawle yëg na ko bu baax a baax suñuy yëngu-yëngu ci koom-koom bi ci baax bi ak parlu gi ñu war a am ci ngëm gi soppiku na lu bari ci rafet njort jamono nattu ji daf ñuy may ñu jaanoo ak sunu neew doole. di kaddu yi Abbé Baye doon uh, tekki kaddu Monseigneur Benjamin Ndiaye ci noonee sax gouverneur bu ndakaaru moom itam daal dina yëkkee benn xaatim jàpp ne nag lépp la nga xamante moom moo jëm ci wàllu pour ndajaloo mbumbaay ak xat-xatloo ci feet bile loole dañ ko daal di tere ci noonu itam lii di police ak gendarmerie dinañ dem ci yenn béréb yi nga xamante ne nit ñi dañ fay dajaloo ñu daal di leen a tasaare bokk na ci itam colub masque bi ak yëtu fa nga xamante ne dañ fay defee di ay dancing ak yu demee noonu le ñu daal di ko tëj bu weesoo 23h maanaam 11h ci guddi noonee la ko gouverneur bu ndakaaru daal di xamle jaarale ko. ci benn communiqué loole rek dafa jóg ngir daal di xeex wàññi lépp lu muy law li leen di mbas mi. askan wa yeewoo ca Daare Salaam nekk ca commune bu Simbandi Brassou ca Sédhiou foofee nag la ñu métti lu bokk na ci ñàkkum courant ndox mu sell. ak yeneen jumtukaay ya nga xamante ne daal dinañ ko soxla niki démb nag la ñu janagooy taskatu xibaar yi rango seen fulaar ak ay morso yu xonk ngir daal di fësal seen ñëg-ñëgu xol Moussa Dramé. askan wi fekk baax ci dëkk bi la di Daara Salaam bokk ci commune Simbandi Brassou soppoon nañ lool amal dox ñaxtu waaye ñu gàntal ko ndax it ay risques yu ñeel coronavirus waaye it amal nañ janoo boo xam ne def nañ ko ak taskat xibaar yi yëgle seen i jafe-jafe xam ne moom la ñu jànkoonteel ci alxames bi amay brassard ak yu xonk cur yoo xam ne dañ koo tàkk wone seen yaakaar gi yàqeeku ndax it tey jii nee ñu it sopp nañ lool am courant bi lay di électricité nee ñu it ci barab boobu lay di brasu ñoom dong ñoo nekk ci jafe-jafe yooyu lépp ba tax na it ñu sàkku buur ñu gën leen ci taxaw dañ ci lu leeral kii di Karamo Gassama yore seen i kat. ñun suñu dëkk bi dafa lëndëm. torop sax xool leen xale yi fi nag. combien d'étudiants qui sont là. jël nañu xale yi yóbbu leen école. depuis musuñu am courant. loolu lu ko waral. gis nañ dëkk yoo xamante ni ay ñaar kër ñoo fi nekk am nañu courant wala amul ci Daara Salaam ne ñu it amul benn pepp ndox mu sell di eau potable boo xam ne moo fa amee kaddu yu soxeexoo ba tey ci way manifester yi. l'eau potable aussi nous manque. yi ci fekk baax ne ñu it saa suñu bëggee wollu dañuy yëbal ba simbandi wala ci tànnaaf mu nekk loo xam ne jafe-jafe la kaddu yu soxeexoo ci may mun a maane. bu ñu amee fii ay dugub ay leneen duñu am fu ñu koy wole. dañuy dox xale pour ñu dem wole tànnaaf mbaa simbandi. loolu métti na lool. way manifester yi ba tey ci lim war a ci ñaari téeméer ne ñu ñuy te danañ gàntal bi ñuy wootee ci falum ndaw yi ñuy dëgmal ndax it seen yaakaar gi yàqeeku dañ ci déglu ba tey Karamo Gassama yore seeni i kat suñu dëkk bi tànko amuñu courant duñu wootee tey duñu wootee ëllëg Moussa Dramé bàyyi ko ci Brassou pour Sud FM mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi sant leen gërëm leen gërëm bu baax Papa Abdoulaye Dieng mi féete woon ci xarala gi ci kanam tuuti rédaction bi dina fi ñëwaat ko ci français ak ci wolof ci wàllum tasum xibaar yi bu juróom-benn waxtu jotee la ba teg fanweeri simili laata loolu ñu bàyyi leen ak oustaz Alioune Sall oustaz Mbacké Sylla ñu wéy ak ci wàllu bu waxtaan wi ñu leen di ñaanal panaanub jàmm